gars yi ñancoo international mu génne gars yi ci match boo xam ne daanaka sorewut ak finalu coupe d'Afrique bi nga xam ne joxoon nañu ko maane dugal na bit boo xam ni bit boo bee gars yëpp bàyyi nañ ko xel ndax jàpp na ni Al Nassr toll woon na ci match bi ci diggante boo xam ni diggante bu métti woon la Cristiano Ronaldo nag mer na bu futt ci ay supporters yi nga xam ni ñooy Al Ittihad ndax dañ ko doon santé noo de Messi bi ñu doon wax foofee ca terrain ba loolee nag naqari na ko waaye na leen nan tëj li nga xam ni mooy seen gémmiñ match boobee ñu jublu ci gars yi ginnaaw bu ngeen defee seen i abonnement yow mi door a ñëw def ko léegi yow mi ko def ba pare cant ngërëm ñeel na la bu leen fàttee aimé vidéo bi na vidéo bi am am yoo xam ne yu am solo la ndax danañ ko soxla ci li nga xam ne mooy sunu liggéey Sadio Mané ngeen gis ko noonu match bi nga xam ne doon na ko fal gone ak sénégalais nag daanaka fi mu toll nii match ba dem nañ ba lu sore sore li nga xam ne maanaam soreetun pire série pilanti yi ndax maanaam dem nañ ba fu wàllu ci toll ci téeméeri minute ak juróom-ñaar kooku nga xam ne Ayman Yahya moom moo jël ginaar yu ñor xomb jox ko gone yi maanaam yéen gi naa ko passe décisive loolee nag moom mu ko ko joxee maanee da ko wiccax ci camp yi amul sax lu xaar wiccax ko ba ci biir camp yi la def loole nag moo permettre équipe bi la di al euh, Nasser am ndam ci al Iftixaar bi nga xam ni ñoom ñoo ñee sonnoon nañ ci match bi al Iftixaar nag am na ay euh, footballkat yoo xam ne yu bëree bëri yu xariñ yafa nekk nga xam ni waaye loole nag téewul dañ leen a jàpp tëj leen ba nooy nepp ndax wal nay dum bokkoon na ci match ba doon fa di doxal te loolee nag mënu ci woon dara moom mii di Walnaydum Sadio Mané nag ñu xam ni fi mu toll nii nag dootul ko ndaw ci wàllu football jàmbaar la xam ne ci football lam ci doxal ñëpp nañ ko ko nangul te xam ne gone gi na solo lool gërëm naa leen sant leen bi mooy di leen ko fàttali yow mi may door a dab sa euh, commentaire wala nga def li nga xam ne mooy aimé suñu vidéo ndax am solo partage tamit bu leen ko euh, fàtte benn yoon ndax information yu wér te wóor ko jënd jar na ko te dañu ciy def lu ne ngir di leen ko andil kon bàyyi leen xel loolee naa leen sant leen encore une fois di leen wax ne ca kanam tuuti yeneen information émission ñu ngi koy defar ci seen télévision bii di Aladji Malick TV wéy leen di topp jërë ngeen jëf waa groupe WhatsApp ba ñu ngi leen di bégg di kontaan ci ñaanal leen jàmm ak tew féex ak sutura def ci seen i poos dara